barki rasul maa kontaan ci yow Fall leen da xamal naa la jiitu nga leen sànni karawaas ba daal leen jël bu kenn mu sa gis ci këru àdduna eh baa xam nga ne yaa ngi toj kër gi laa ilaaha leen da xamal naa la faama sa daagu ci digg kër gi sa daagu rek nga jóg rek dox hmm. est-ce que xam nga ne moo ngi rey nday njaay ak asu ci biir kër gi kon dégg amuñu woon yéen a nga dugg ci biir kër gi dama cee dox reyante ci ba sëy bi am barke Rasulullah mais leen danaa la ko xam faama loo mën a yokk ci jonge na nga ko yokk da nga déglu samay conseil bu baax nag bul déglu ma sàmb bul déglu ma demba sëyal sëy bi toppatoo sa jëkkër def li war ci moom parce que daam ñoo nekkal nag ci biir kër gi ñuy ay seytaan di yàqkat muy asu ak nday jaay il est ah. mooy tu leen bu ñu sañoon suba suba suba sa sëy bi yàqu. te ngi ci tànk yi nag. da ngay wax rek. man maa leen di déglu ngi déglu ñoo ngi wut pexe bu nu ñu la tëral ba sa sëy bi yàqu yow nag bu leen may dara yow doo dóor doo saaga waaye yow sa jaagar jaagar rek tas na kër gi. Hmm. loolu laa xam ci yow cam. dana baax a bëri dafa guma dara. bu ko waxati. maa ngi commencé dugg sax. ah. dawoon naa la a barki ro na naa xëy la yëngalal say lam ah, leen du nitu dara ko ñoom rek ah. <laughs> eh, ak mu baax maa ngi noonu sama waaji sama waaji na fekk mu mat waay waaye sama waaji sama waaji ndama gi ci gàcce ngi ah? bu baax yaa ngi provoqué de. wuy ma wuy ma. lii ay joor la. wala eh. oh, da bëgg ma may la ko. <laughs> Ah, kër gi neex na bëgg di neexal sëñ. wuy ma kër gi neex na. nit ku baax nit mhm. nit ku lekk ah. nit ku bëgg doomu aadama nit ku jàppale jëkkëram. <laughs> Hmm? sa làmmiñ. ministre bi rambaaj bee naa bi. yow xanaa yaa taxaw fii léegi yàq ma ma may mel na lu may bañ a tudd. Hmm. nga seen ma may dox dégg samay tànk kalaas kalaas nga ne ah damaa baax. ah dana <laughs> ba eh, xam nga lu ma lay yëgal man sa yii ngay def damaa bëgg a yemale ko ci nday njaay ak faama te génne ma ci nag ba ma set wecc maa ngi yow a ni nga mel rek laa boo tey nekk vert suba man ma cuubu nekk rose hmm. maa yow a yem ci ko génnal nag ci yii nga ne te nga génne ma ci ba ma set. falaay mag yow sëy taale bi yow war ngaa taxaw fii naan femme ah, ah, ah, ah man damaa faale femme. ah faale woo. man damaa lijjanti femme. <laughs> man kii kii kopp sama kanam di kopp. sama kanam di. kopp nga kooku wala grande waaye man lan la ma yëngalee man. <laughs> loolu la yaakaar rek. waaw <laughs> ah, yow loolu la yow yow yow yow réeré nga mbir na nit naan day fowee yow réeré nga mbir mayal nit ñi seen jàmm yow moomoo nit ñi. <laughs> dégg moomoo nit ñi. Mm. da ngay sëy muy sëy na ku ne toppatoo lijjanti ay problème am nag. damaa lijjanti sëyam rek parce que yow xamoo ba caa. xamoo ba ca ah yow lan la quest luy problème bi. kii problème bi. di jaagar jaagar di leen tiital. Ah. ngeen di xam ak ximilik ah. lan la def leen ni moom. wax dëgg yàlla. ma ne ku man defal ni moom. <laughs> moo ngi toog. waaw waaw wuti leen ginnaaw. daf koo matal sëkk nag. boo ma waxee ajaratu ajaratu ah, boo ma waxee ma def loolu ñaaw soo ma waxee ajaratu ma def loolu ñaaw indiscipline fu ma merde. man naa kafe lu ne bu mu def di wax ay góor a jaratu de. ah na dëgër. na dëgër kat ah <laughs> ah mayal nit ñi seen ah. jàmm. Ah, ki leen tiital a ngi toog bu ngeen di wax wax leen ak moom man amul leen lu ngeen di wax ak man lan la. lan la lan lii ay feem la de da <laughs> góore rek barke yonent bi waaw dafu ah. <laughs> leen gën a jàppale ah baax na yow daal géreel sa sëy toppatoo sa jëkkër def li la war dégg nga. dërëm yow wala dana metti. waaw ah. yow sama digganteeg yow. kenn xaju ci. da nga cee bëgg a yàgg nañu wax lu leen sax. faama <laughs> yow ba géej gi di fer. ah faama eh. yow da ngaa bëgg a yàgg ci kër yow yow may ma loolu la naqari yow. yow la mooy sa problème da nga fee bëgg a yàgg. dama fi dama fi sëy nga naan ma yàgg yàgg yàgg yàgg dafa tuuti. Ah. xam nga sëy loolu ñu naan sëy da may sëy ba sëy yow da ngay xaar. la ilaha illallah. yow da ngay xaar waaw waaw. barke rasulullah waaw kees <laughs> gi mu yor kees ga yëngal kër gi de kees ga yëngal kër gi kees ga yëngal kër gi ah ah moom mi laay ak mën a séddale day jox kii lu tuuti jox kii lu dëkkaat jox kii lu bëri dara la rek a mën a séddale Pape Bago way Pape Diouf la suñu borom bindu doomu aadama waaye yemaluwu leen parce mooy kii lu tuuti kii lu ne gaañ kii lu yem kii dara yow nag yàllaa la bind yàllaa la boole ci ñu yàlla mayul dara indiscipline man muy góore <laughs> yàlla bu ma bokk ci ma fii yow fan yi foo nekk maa ngi fi de damaa topp samay xalaat rek. bàyyi sa papa comme ça ah damaa laajte ma ne waa mais aw ma. lan la léegi timis nga tëju. waaw waaw mais xam nga rek. Ah, moo tax kay man kay du la mën a gis. <laughs> loolu la man moom du ma yéetu ci kër gi. waaw sa grande sœur yaa ngi koy dégg. yéen a ngi waaw xadi waaw. Hmm, xadi de fois ma ko message sax du ma tontu. ah. waaw. mu wax man bariwul de. billaay. man dama jaaxal xaw ma ci mu ne non au boo nekkee dara ngay nemm ko say waajur di leen woo di wax ak ñoom mu loolu moo gën a rafet parce que man dégguma xaw ma ci lu mu nekk xaw ma lenn ma ne ma xëy na ma gisee awa. dina ma jox sax mu mel ci ah. daal li ma waxtaan ak moom. Ah. dama koy message sax duma faale bu ma ko toppoon sax dootuma waxatee moom. waaye dama ne comme boo koy fi ñu dëkk. ah xarit daal papa dalaa mere. dama dalaa bàyyi de. man waaw lu ma ko def. xarida nee na moom àllaaxira sax bu ngeen fa daje. ku la wax loolu xadi. ah waxtaan nañ kay mu xamal ma loolu ci ay biir waxam. lu ma ko def ba may ba may daje man àllaaxira. papa yow loo ko fi deful. yow papa ni nga nekkee nii da yaakaar ni sa jàmm. loolu la. da ngaa say jabar nga koy def waaye ñun ñii say doom boo ñu ko defee dañ lay bàyyi. man xëy na damaa xamul nu ma def ndax bëgg gi ma la bëgg rek waaye kon damay jël sama yoonu bopp mais man mënu maa dem sans yow. man tax waxuma moom mais moom lu ma ko def lu ma ko def papa ma ni nga def yaay xadi fii ci kër gi. Ah. génne ko ca biti. loolu rafet na nga yaakaar loolu dina ko neex yow papa mënoon ngaa bàyyi ku nekk ba mu des sën papa li la mel sën muñal kenn du la ko muñal ba ngeen dee xale ba tey yéenay ànd te bàyyiwu la kon war nga koo jàpp bu baax te man li ma ci gën a métti ba mu ne buraacoo bii nga takk kooba bi mer bi nga xamante ne daa doxa doxa doxa dox ba tëstanam yi kan yow xool nga tëstanu meer bi nga takk. yow xool nga ki nga wax kii loo ko xamal. lu ma ko xamal xam ko bu baax laa def. foo ko xamee. maa ko xool lijjanti ko lijjanti ay mbiram. te xam nga ne man ci dëkk bi laa dëkk. bi nga lijjantee loo gis. li mu gis neexu ma day sëy di tas sëyu contrat lay sëy sëyu contrat lay sëy te fu mu dugg bala faa génn wàcc fa loo xamante ni kenn dootu ko fàtteeti yow papa war ngaa takk kii. te yow papa yow ñaata jabar nga am. yow ñaata nga am. ñeent ñeent laa yor. ñeent nga yor tante sa nekkatu ci nekkatu ci ñeent laa yor. xadi nag moo yee bàyyi la xadi moo yee bàyyi la ni nga def mersen si boppam papa du dëgg du yoon mersen mënoo am ku ko gën. Ah, léegi yow nga ni kii lijjanti ko ba xam loolu lépp ci en tout cas daal. Hmm? taxoo ko baax. Hmm? te sëy bi moom. Hmm. dinaa jël dinaa ci jël sama décision. Euh, man maa la woon pour ñu waxtaan. waaw am nga koo lijjanti lijjanti woo sa yaay. sama yaay ma sama yaay ma. yow mën nga ne à chaque fois rek bu ñu waxee rek nga waxal fi sama yaay loo xamante ne nii. tey munoo liggéey bàyyi li ngay jël sama yaay munoo koo bàyyi. tey mi te xam nga lu mu def. Bamako ah, ma ci wax bari a wax jënd bagage la fay ma bu ma tax wax. ba man li may wax sax dama ko dul nëbb ndax yow mii mënul am ku la gën mënul am jabar ju la gën sama yaay ak ndey njaay xari baabaa ci yam ku la war a jàpp la te yow tamit médecin dangaa war a génn kër gi de ah. dangaa war a génn kër gi ndax nit góor lu mu lay gisee noonu la lay ëwalee bu góor bu la téewul rek yow la dangaa war a am fulla de sa morom ah nii kenn ko sëyee kii sa morom waaw loolu lépp amul problème waaw dama laa soxla tuuti waaw pour ñu baax na si raxlo la mbaa jàmm léegi jubile nga ba pare lu may jubile mel ni ko dugal Anta ngaa dugal kay. da ngaa déggee Aliou Cissé daf maa jël. yaa raw Aliou Cissé dafi nekk nii. Hmm. waaw yow yaay sélectionneur bu mag bi. ah nga ba pare comme yaa ngi gàddu sa trophée de guerre si bien yaa ngi seetu c'est bien waxuma sax yooyu yëpp man maa la soxla c'est du sérieux nag. Hmm. waaw dafa am lu ñuy waxtaan ak yow. Hmm. Ah, baax damaa bu bokkul ci waxtaan bi wala. de waaw de ah, problème nañu waxtaan ma ak yow. a ah. waaw ah, kon na yow war ngaa seetaat sa bopp de. yow moom papa eh. war ngaa xoolaat sa bopp. Eh, sa digganteeg jigéen moom war nañ cee wax. nga xoolaat sa digganteeg sa yaay yow. wala nga maa lijjanti lijjanti sa ndey. ba pare sa yaay ngay lijjanti. man ma def naa enquête ci sa yaay di enquête ci yaay ci yaay def samay sama bor yi amel nga ma ñaari chaîne or bu ko fàtte xajug moom ci bàmmeel ak xaalis bi ma calculer lépp dama ko bindoon. Hmm. c'est dans l'ordre de huit cent mille. Hmm. ma bëgg nga fay ma sama xaalis ma abal la kër gi ndax miraas bi ci boppam sax dama bëgg nga accélérer ko d'abord ndax yow miraas mi ngay bañ ma tudd parce que da bëgg ne ci kër gi di ma piétiner def ma sa pose pied duma ko nangu ma bëgg nga accélérer miraas bi boo paree yëkkat samay huit cent mille teg samay loxo ñu ñaanalante àllaaxira sax bu ñu fa daje ma ak yow. rafet na ba pare bu ko ñaawal man lu ma mel nit dinaa ko fay waaw ndax nit dee na fi sax fayul ba dee nit gàdd ko fayul koy borom waaw man bu ma fayul sax ma dee samay mbokk fay la te du soobee yàlla fas yéene naa la fay te dinaa la fay xam nga ne man lii ngay def nag matu ko yaa ngi dégg man bawuma la man yaa ma ne woon mën ngaa takki jabar man mag laa yaa ma noonu bugguma nga doxaan bu toog ba heure bii rek nga gis ñeen ñëpp daal moom bi mu ayee ba ne ràpp néegam bi huit heures et demie ñëpp seen xol yi yéen lan la. ba yéen ñaata yoon ngeen tëj buntu avant muy ñëw moom. ba waaw je n'ai jamais été aussi sérieuse gis nga yi ngay wax. Hmm. waxuma ko ay wax sentiment ak ay bu ci ñaaw suma je m'en hmm. xam nga lu ma bëgg. Hmm. samay huit cent mille nga accès miraas bi ñu ñaanalante et la vie continue lu dëgg. amul benn problème. voilà d'accord loolu laa ne de ndaw si ba mu nee ràpp bunt bi koo amee loolu bor da koy génnewaat ku feebarut mais <laughs> léegi la. les maa leen woolu woon mm-hmm. bëggoon ñu waxtaan asu mm-hmm. bàyyi ma xel mm-hmm. ndax lii waxtaan bu bu dëgër la te waxi rajo la du delluwaat ginnaaw euh, li ma leen woowee xari baaba fi mu toll am combat bu sérieux moins de zeste am ku ci daanu te bëgguma si ñun nii kenn échec fi wuu bëgguma koo dégg ci kenn léegi nag damaa teg benn stratégie bu bees ànd leen teeg man lu ma dawar rek ci kër gi ngir yàlla bu leen ma balaame bu leen ma xas bu leen ne damaa war wala dara. kon ci biir kër gi ci biir gàlle bi la. Mhm. ah mais yow xadi ah, baaba gis nga lii fi ne. kii du du combat bu ndaw te kii du adversaire kii du yaawu jaar kii Modou Lo la kii Balla Gaye la nag dañoo war a jàkkaarloo moom te technique moo koy daan bàyyi leen maag moom. dajale. sa sa sa suuf suufu géej ak sa élastro def ni Modou man sa geer geeru ma dugg ma te su ma xamoon lii nga may doyee am naa leneen lu ma doxee nee naa baax na def lu ko neex sama yoon yaa may dégg. Ah, waaw waaw man nag geeru ma kombaaw ma. loo wax nag maa sa ginnaaw. mais loolu man kay man soxlawu ma nga geer de xadi baa man xam naa ne noppal naa la ndax noppal la moo tax man la bàyyi ma coow li. xew mi déggoo li ma soxlawu ma ci suufu géej soxlaw ma ci élaas xam nga ma soxla zam-zam kase. nday yow xam nga ne man boo wootee dama ciy sawar. man xam naa loolu. gis nga problème bii. Mm-hmm. man xalaatoon naa ne yaa ma ci doy. kase man rek mais comme da ngaa ruux woon noppi waxoo dara. booba maa ngi séance yow gis nga ma fan yii yëpp j'ai pas dormi lan li tax ma mel nii xam nga ni j'ai pas dormi. ma xool sa bëri gis nga sama bëri ni mu mel. mais dama doon toog di waxtaan sama ñege ñaay di xool. ndax Kër bala ngaa def benn geste. Mm. faaw nga teg ko ci heure ak axe. la. xaw ma kël ngay jaay xaw ma waaye gis nga dañ naan wuyu bande yi bàyyam kii moo la gën a wuyu ban laa ban dugg naa googal ko xama moo la ëpp doole moo la large moo la long man nag jamono yama daal problème mu doole mooy sa problème jamono yama daal summeeku du xeex dama ko nekk non lii du xeex du ceeb kii yaasa bi du ci soble kii damaa dugg google xool ko xoolaat ko dèjà turam sa nekkul google bandi dëgg sa tur day nekk google man ngay waxal dëgg dëgg kii recherché naa ko bul indi problème bul indi dara yéen daal tey laa leen may tey te tey laay commencé. li may def tamit da nga neex. arme de guerre da koy am de. mais xaribaa ah, man dama sama xel man dama man li ne sama man li ne sama bopp bi dafa xaj si Sénégal. pikin la de. kan mooy booy pikin de. kan mooy booy pikin. jaaxal li xew man daal li ma leen wax on se donne rendez bu tey tey tey. ban du ma leen wax heure nag. mais daal tey ngay commencé. tey. di ngeen xam ni commencé naa. nañ jël suñu chaise toog buntu kër gi la ñuy toog wala ci digg. foo leen ko teg baax na. man moom jëluma chaise di teg moom. asu yow moom doo ragal sama ragal ak sama catu kol. la la damay takk. moo ah, dem ma topp la. dama ne bu leen ragal teg leen lépp sama loxo. xale bi boo yiwul bandiwul yeela mi sew yi mel ni kir naa kii boo yiwul bàyyi na ul yow baal ma kii kii taxawaay bu dëgër sa da koo mën noppi leen rek à ce soir lépp neex. incha on gère. tu es dedans. bien sûr. man na léegi bu ma ci feeñ bu bu ci ah, kenn feeñ. ah man na après maa ngi si yeneen dossier ma jaar. maa ngi si yeneen. as wóolu nga de. non wóolu naa ko wóolu naa ko lii moom moo a gën a mata di gën a ñàkk fayda ñëpp. waaw yay dem. จะบินwaaye tonton Thiam ah seen kër gi fan yi dina yëngu. lu ko yëngal. jéeg bii ñëw ci biir kër gi jongoma naa ne nu ne te xam naa ne dangeen a bëgg lu bees xam naa jéeg bi su ñëwee su bali seetu fee yow da nga ciy profité ndax xam nga xale yu jigéen su ñëwee sëy si ci biir kër yi fekk fi ay wujj wala ay wujj peccal la dañuy bëgg a yennu nag sëy bi aj ko ci kaw ñu leen di taggat di leen kiyal seeni maam naan ñoo fi mën naan say petit déjeuner mi ngi lay fekk sa biir néeg say añ say reer say fruit dégg naa moom yaa ngi noos moom yii jeeg bi changé na kër gi kii ne yow da nga dafa mel da ñëw pour saboter ma tey saboter ma la di li ma dégg rek laa wax kii gën a bon ci àdduna kooku nga may wax nii tey jeeg boobu ngay wax mooy daagu ci biir kër gi ah man ma dégg xewam dalaa teral a teral a teral ba mbuus bi ba ngay ñëw daal diis ba ko yaa seen mbuus mu yor. seenu ma ko de xam nga perkaal yow mooy li ñuy sàngee néew. li sàngee néew. Ah. su ma ko joxoon sax ma jël mais joxuma dara. kon kii teralu kii gën a bon koy gis si àdduna kii moo bon kii ba nag doon na loxoom ci ëkk da doon wër rek soxna rek ak jabar rek tey lay soog a am jabaram nag tey te nag dinaa la xamal benn affaire nga dégg ko hmm. est que xam nga ni ndaw si laa ay gaaf. ay loo ko xamal nag. rey na ñaari jëkkër deux ñaar troisième bi xamul nu mu demee ba mu ko takkee ca guddi ga la néeg ba tàkk ci la ñëw nag xoolal buubu ñëw ci ba est-ce xool nga tëj suñu ndaw si tànk yi gis nga mag ñi lu ñu la wax rek am na jabar bala nga koo takk danga koy xoolaat ba fi mu dugg xamul fan la man nag sama yoon nekku c'est pas mon problème ba moom lu mu def rek baax na ci moom waaw foofu laa yem. ah yow comme gis nga loolu yëpp lu nga ndaw si nag ah ndaw si nag neexut a xam naa si ba dalul woon moom soo ca dalee jël ay gaaf ak ñàkk ay gaaf. kan kan su si dalee jël man. <laughs> waaw leen nag laa lay wax. tons daa am nag dama bëgg ñu waxtaanee ko muy sama yaay ji nekk ci biir kër gi. mère Sène maman Sène elle mm, xam nga moom lu ko neex ak li ko naqari kenn mënu koo xam. Mm, mm, dimbale ma rek nga di ko taxaw. dinaa ko jàppale. waaw ndax ça bu nit ku baax. waaye kooku dafa am ku ko gën ci kaw. kenn mënu ko remplacer ci biir kër gi man maa la wax. di def ba bare boole kooku pat ak organisé waaye def takk say rajo di mbel mbel di mbel mbel na xaj bu sex ku dugg tàng. bu baax man su ma dundee tey bu moo tax man. eh man j'étais mort. j'étais <laughs> mort. moom. nga dundal ma dundal. Euh, père. Euh, damay euh, euh, xam nga ma lay wax bex ñu gàtt ki la tagg tey ki la tagg démb xas la tey bu la ñaari mitti woolu ko ba mu ñëw nga laaj ko ñaari bu ciy dëgg boroom gaaral bi daan naa toog mu may njaral soow di ma ray ak xara ki ginaar ba xam dégg nga ma waaw cuukeel bi moom yàgg naa tëdd ci fii kon nag boobu duma ci tontu. li tax ma ñëw dama lay wax lu gàtt laa lay wax si dafa am ñoo xam ni dañoo am benn métier bu bees muy métier revue de presse du ñu toog seen kër seen saag la ñuy gàddu rek di revue de presse di wër di xool li am ci kër yi pour bu ko defee nag ñu xool ku ñu mën a woo téléphone baa ku ñu ko whatsapp kër gi nag kenn du fi whatsappee nan lii moo xew kër diw noonu am loolu amu fi métier bu bees boobu bu soobee yàlla du dox fii dama bëgg per looy wax na ko xam. looy wax rek na nga ko xam ndax am na ñoo xam ne nit àdduna fi ñu toll da ngay xam fa ngay waxee xam ña ngay waxal. parce que am na ñoo yóbbaate la ñu mën métier bi dafa garaaw bu garaaw la bu ñu yor boo xam ne seen saak di wër di taxawaalu seen tànk yi dem na ba xar boobu nag yow waroo cee dugg waroo koo nangu bul nangu nag ku la loolu ay conseil loo xam ne en tant que doom mu ñëw ko yedde baayam pour nga xam ne du ma la sax yedd mais conseil la que am na yoo xam ne da kër jàmm mais nit ñi daal léegi dañ wax man Sénégal maintenant da ngay gis daal koo xam ni day yor téeméeram koo gi taman li ma jaaxal Sénégal koo gi koo yëkkati tànk tuba tubayam gis ci lëkkër gu la jaaxal ñëpp am loo xam ni mën a kan la mais duñu sulli saal seen bos dañuy xëy daal li xam li xew ci kër nit ñi li dal nit ñi ban feebar leen dal ba xam yor nañ dépense ba xam lu tax ñu sol yére bi lan moo tax yor seen seen oto temps yoruñu ko lan mais yooyu métier yooyu ba kañ bu leen dimbali ci métier boobu ndax boo leen ci dimbalee dinañ dem nag ba am ci doole te ñax métier boobu ñi koy def dañoo am doole te réew mi dañ leen a gëm kon nag père loolu laa doon wax léegi bu ci dugg wër daal di taxawaat rek ñoom daal dañuy wër rek kër jàmbur bu ne ñu xool la fa xew xool lañ togg. mais est-ce que tu as fini. man du ma sa moroom du ma sa mappandoo. ah ngay ñëw di ma fenloo. dégg nga li mu la ay revue de presse ak yooyu xoolal moi je pense que yow yaay def revue de presse boobu revue de presse nu muy mel yow da xëy un rek ni juux suñu biir. Ah. waaw yow dangaa xëy bés rek ni juux suñu biir xamuñu foo jógee. ñu ne yee doomu kan nga doomu ban dara leeruñ si yow ñu dañoo ñuul yow nga xees ah. qu'est-ce qu'il y problème mm-hmm. y a problème y a pas problème y a test ah, waaw à côté waaw loolu war nañ koo régler mm. moo tax ma bëgg nga téye sa laam yi te noppi te duma sa morom que ce soit la dernière fois nga fekk ma ci salon bi may waxtaan nga dugg sama sama waxtaan d'accord foofu laa yem euh, xam nga tuuma gi nga ma wax yow tuumaan nga sa bopp yow mi nangu démb ni man ñu a ma jur yow yaa taxu ni xas ma tey nga ni bokk ma fi bokkoo fi waaw loolu de da ngay xam nga ñaa ñoo xas xas nga ki nga bokkal benn benn deret muy bax mi ma jur beneen bi nag du ma ci dugg mooy sama waajur wu jigéen ndax nag tuuma la li nga wax nii mais nag dama lay wax leen tuuma nag néegu gor la baadoolo dafa xanaan famille bii nag miin na ko noonu tuuma dañu ko miin mais dama lay wax daal wax ju gàtt daal laa lay wax ni bu dee da nga bokk bokk ci famille bi ci kii bi ci liggéey bi xeetu liggéey bi yàlla baax na du courage tu peux disposer euh, sama kër la ah fii tu peux disposer. dégg waxtaan ak kii génn waaw kër gi fayatoo ko. ah fa ah d'accord fayatuma ko. dama la koy fàttali quoi. tu ne payes plus <laughs> ni ngeen dëkkee kii kii Serigne. à tout à l'heure ci biir. ah déet man kay dama bàyyi nañ demandoo. <laughs> bi neex na ah, ci law ne. maa nii rek. bu yàlla doon seet sax. Ah. damaa dugg sa néeg gisuma la. Mhm. ndax am na yoo xam ne. Mhm. fu mu xajul rek xaju fa. dëgg la. da ngay doog a sëy si si kër gi. Mhm. damaa bëggoon jàmm ak salaam sama digganteek yow. dëgg mën naa ne man doo sama wujj. dëgg bu wujjee di am. as su nga war a wujjee. waaye man def ma comme sa rakk def ma comme sa lépp boo amee problème ñëwal wax ma loo xamul ndax ku la jiitu ci néegu moo la mën a wax fooy toog ba mii dama ko maîtriser dama koo xam lii nga def nag baax na ndax xam naa li tax nga def ko ñe mm-hmm. munoo wax nag ndax doo sëy si tey rek bëgg a wax sa problème mu jëkkër tey mais am na lu ma xam de. waaw am na loo xam nga ne man li nga xam yëpp xam naa. dëgg la léegi nag dama bëggoon. dama lay yokkale dimbali la rek. ndax ba moom xam naa problème bi dundu nga ko sax. souffrir nga tuuti ndax moom dafa metti waaw nga buux. waaw teg tànk mu kaddi waaw moo tax xam naa li la dal démb ngay bañ mu dalaa la moo tax tey nga defar dingee loo ci def. bii def naa ci ay naana ak ay pastèque yooyu noonu. looy wax ni ah waaw. non faama nag ñoom non. bul dugg ci moom ci domaine boobu. ah kon la bëgg ma def man affaire ji maa ci toog. kon dama ko defaree nii normal la. ba pare lii mënoon naa gën a fees jigéen da ngay xër du dëgg mënoon naa gën a fees dose bi yokku ko. pourtant dama bañoon affaire bi léger comme dama ko def dose bi fort. moo tax ma yemale ko. waaw ma la wax Famba. affaire bi gën a <laughs> soxla nga ma wala ma. sa <laughs> ah, ménage. ah soxla naa la tuuti ah, <laughs> ah, tuuti rek ah kon nga koy tuuti tuuti nga jàmm indi nga jàmm. jàmm la tuuti. léegi man daal jàmm rek laa bëgg laa paie. mais ma si woote ak yow. ñu dem ci rek. non dem sax nag. na mais indi nga jàmm. ah noonu la yaay sama mag. léegi nag. jubóo non non sa laa Famba. ah a rakk nga ah yaa ma mag moom <laughs> may maa ngi ñeenteel xarit jëkkër waaw ma ne. <laughs> qu'importe rek comme maa mujjee ñëw. Mm. may xale yàlla baax ah, la léegi da ngay yokk ah. def ci ay affaire yu sew. comme man am naa fi kii poobar moom faaw nga yokk ko ci. poobar ah waaw baax man xam naa lii taal man lu gën a baaxee rek. sama oto la. sama marque la maa ko jënd xam naa nuñ koy taalee. dëgg la dëgg la. auditeurs yi day bañ si suuf yëpp day bañ faaw nga doser ko ba mu baax pour mu mën a yéeg. yaa wax lii ci ba lay wax lu normal. yaa wax lii ci déglu rek. naa la may ay quelques garab. comprimé nga tëmbal ko ci. ah amul problème d'accord poobar yokkal. ñun daal bu baaxee ñun la baaxal. jeex na kon loo ci def rek. kon léegi yow daal nañu àndandoo xàccandoo. amul problème loolu ma ko tey ba bëgg naa tey ba bu xool ne day seen ñay fonde ngaay te du ci guub. yaa lii lii laa bëgg. loolu dama may ma ma ñëw indi la comprimé. demal nga yokk poobar beeg kaane wàññeekul. demal ca waaw doo bàyyi ma def poobar rek. yokkal ma kaane poobar maa la ko ñaan. nañ yërëm ba day gaañ li ma la wax de bis boo ko ci defee tey yow yaa xëy jox ma dara ne man nday kontaan naa. yaa wax lii la wax man bàyyi ma dem yokku cere doole ma kaa nekk poobar ma ñëw indi la comprimé yi nga def ah, yow de li ma waxoon yëpp gis naa ko mm-hmm. macha allah waaye dama am lu ma jaaxal mm-hmm. man de sama borom kër. amaat na liggéeyam jotaat na am na xaalis macha allah waaye moom daal man rek lay bañ a gis loolu nag laa ñëwoon pour nga dimbali ma ci te man leer na ma ne sama jëkkër man rek la bëgg. d'accord parce que sa borom kër nga ñaan lu loon bii passé daal. Mhm. Mhm. di sa diggante yook moom nga bëgg a xool mhm. nañ ko xool rek nañ ko xool. nañ ko xool yaa ngi sama numéro. waaw la ma la rek xam naa da ko fàtte da ma yónnee vocal rek ci 78 533 16 16. waaw numéro mu bëggoon nga xoolal ma sama diggante ak sama borom kër gàllankoor yi ci nekk lan la. waaw bu defee ñu xoolal la li koy dindi dinañ la ko wax incha allah dégg nga mm-hmm. ci kàttan yàlla incha allah yàlla ma demee naa la message. baax na waaw amul problème baax na jërëjëf. jërëjëf.